mais da ngaa jiital diine ne diine yi dama leen di teral ñi xam ne ñoo yor alxuraan yi dama leen di teral ñuy jàppale xale yi jàng alxuraan. nee na bu alxuraan la ñu wax. 5000 dollars ci alxuraan. preuve preuve. ah moo tax nee na nee na am alxuraan diinay def moo ko ci am ki xam nga da warul lenn lu alxuraan mais bi jàngee léegi ba tari boo ko xoolee xam ne ku bëgg yonent bi fi la juddoo wax alxuraan yàlla yàlla lafal ca jooy yaay booy bul jooy. képp ku ñëw suñu soxla wax la suñu aajo daal képp suñu faj. yaay bu sa baare bu jooy. yàlla yàlla guddal sa fan. amiin amiin. yaakaar loo nekkee comme fama. ku ci topp. dama ne kan moo ci topp actuellement nii. ku ci topp. man association. association Gambian people ma people. ah sama mbokku Gambian waxtaan